l'impunité du viol. Et maintenant, quand le violeur, le prédateur est un président de la République, ça c'est autre chose. Ça veut dire c'est l'homme le plus protégé de la République, le plus protégé du pays. Donc il faut imaginer le calvaire que ces jeunes filles ont subi pendant cette période. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, dire que ce sont des héroïnes, euh, n'est pas quelque chose d'anodin. C'est très important de dire que c'est des héroïnes. Et ce qu'elles font aussi, c'est pour dire aux autres, euh, comme on dit, balance ton saï sai comme dit Ndei Fatoukan. On ne peut pas dire autre chose. Donc, il faut effectivement encourager les femmes vraiment à cette épreuve, même si elle est dure. Donc, j'ai donné la parole tout à l'heure à Fatoumata Ah, ba pare tamit ah, daa essayé woon pour violer ma waaye yàlla jàppale ma ne yóbbu nañ ma téye nañ ma foofu ay trois jours mais yàlla ma jàppale ba ma mën ah, man maa nekk porte parole yi Jammeh to Justice mooy campagne boo xam ne dañ ka def am ay Amnesty International Human Rights Watch Trial International pour gis ne Jammeh yu bëri yum def ñu ñu enquête ko ba pare ñu ñu ñu ñu yóbbu ko <laughs> tribunal bi nga xam ne am nañ justice kon euh, ñu ñu ngi am tamit beneen jàmmetu josti bi nga xam ne mu ngi gaana ndax dañoo gis ne ay gaan yéen dañ ñëwoon Gambie bi a dem ci backway bi mooy pour dem Europe mais Yaya Jammeh woon lañ ne ñooñu dañoo ñëwoon pour jël gouvernement am 44 Ghanéens ah ñu jàpp leen rey leen kon loolu moo tax waa Ghana tamit ñëw jàppale ñu nekk ci euh, nekk ci xeex bi ñoom it ñu am jàmmeti justice Ghana pour wax leen rek euh, naka lañ nekk di defee suñ suñ xeex bi Euh, lu tax ñu nekk fi tey nag mooy euh, sexual abuse bi <laughs> waaw euh, loolu dafa amoon ndax man dama dama nekkoon woykat Gàmbi ma amoon orchestre bi nga xam ne foofu laa doon woyee donc Yaya jàmme toog ba am temps boo xam ne nee na moom lu mu organiser rek programme bu mu organiser rek man dama faa war a nekk dama war a woy sama orchestre bi il faut daal ñu nekk fa donc dañuy nekk kër ga tëdd di nelaw ñu woo la président bi neen ngeen jóg léegi ngeen ñëw ngeen ñëw way da ngay dem ndax dictateur foog nga jóg dem ñàkk a dem moom mooy loolu du ma neex ndax man sama papa opposant la woon donc ñun bokkuñu woon ci lii ñu yaaya jàmme bi mais lu may def dem naa ba commencé woy maa ngi ci maa ngi ci woy bi lu mu gisoon li mu bëggoon xaw ma ko woon mais amon ay mag ñoo xamne ñi ngi nekk ci orchestre mi ne ma booy dem ci yaa jame wat xamna dañoo seetlu nu may xolé ak yu muy def parce que buñ buma wayé nonu ba paré ba wacca amul bés bo xamne du yoni protocole ñu daw ñoo jël eh président mu daf la bëgg gis buma démé duma wax lu am fayda ay wax wax yo xamne dal daal da ko comprendre donc ñoo ñi ne ma dem ci yaa jame ci programme bi bul sol lu gatt day sol lu gudd mba nga sol tubey li nga xamne dal du woné sa yaram ma ne ok mais man xaw ma woon lu tax ñu wax ma loolu mais mooy sama ménageur bi ak ak ñi nekkoon ci orchestre bi ma ne baax na ñu nekk foofu am benn bés maa ngi toog ci kër mooy 2015 ah mars avril deux mille deux mille quinze ma nekk ci kër bi benn guddi rek am ku ma woo ne ma man protocole la euh, ci state house bi lay liggéey euh, dam dinaa la paas sama sama sama boss sama patron ma ne ko baax na léegi benn jigéen nag ñëw woowaat ma ne ma man Jimbi Jammeh laa tudd Jimbi Jammeh fanaa cousin a Jammeh la mais moo ko gën a jege. ba pare moo koy dañ après dañoo gis ne moom moo koy régler jigéen yu bëgg a violer ak yooyu mais xaw ma ci dara ah, mu ne ah, président bi daf la bëgg a gis mais yow kenn ma ne ko loolu c'est pas possible parce que man damay woy te daa am ku may woyandoo bu dee sama woy bi moo tax ñu bëgg maa gis den man ak kooku ñoo war a ànd mu ne déedéet. président bi moo ne yow dong yaa war a dem te loolu ñun mënuñ koy dindi moom moo ko wax ma toog fa di jooy sama mag di ma ree ak yooyu ma ne leen li may xalaat xalaatoo leen ko ndax foofu dañ doon dégg ay wax ay wax ba pare expérience bu ma am saa yu ma gisee ak nu muy def ma comprendre ne am na loo xam ne normalul daal donc ma ko doon daw mais keroog damaa gis ne mënatuma dawati donc mu ne ma ne ko léegi mën naa dem ak sama ménagère bi bu dee bëggul a gis ku may woyandoo ñu ne déedéet léegi chefu protocole bi kooku woowaat ma ne ma dégg naa yaa ngi bañ ci suma suma xale yi mais loolu mënuñ ko def président bi bu ne kii laa soxla kooku mooy dem te bu dee moom dong laa soxla moom dong mooy dem ma ne ah, baax na sama papa daal ne bëgguloon ma dem mu ngi wax ne du ma dem après ma ne leen ne baax na léegi bu leen ñëw jël si ma sama kër suba man dinaa leen woo bu ma paree ngeen ñëw jël si ma donc moo wax ko sama waa orchestre bi ne leen ne lii moo xew ndax ñoom yëgoon nañ ko ndax chef protocole bi daa woo sama ménageur bi ne ko kii mu ngi bañ mais yow munoo ñëw ku muy woyandoo mënut a ñëw ndax président bi daa wax ne moom dong moo war a ñëw donc ñu ne baax na. ah léegi ci suba si ma ne sama papa ne bàyyi rek ma dem ndax kii mënuma ko daw mënuma dem fenn boo gisee bu ne kii laa soxla rek am na ñu mu teg ñoo xam ne ñu ngi observé seet ndax daa bëgg daw wala dara kon du ma mën a daw naa dem rek. donc mu ñew ma dem euh, daje ak sama wa orchestre man leen ne xaar leen ma dem lu ci mënta ne moy lolu euh ma gis goor bu euh am yaram ni dugg si am fit dal ñoo ne ma man may chauffeur bi ki la wara yobbu mané ne ko ok baxna nañ dem donc ñu mu taal auto bi ibu buntu auto bi ma dugg ma gis muy jaar neneen ndax ñun suñ palais bi mu ngi banjul mais Yaya Jammeh moom euh, fu mu euh, fu mu dëkk euh, village am village am mu ngi Kanilaay kon Banjul daa nekk ni Kanilaay nekkee ne ma gis muy jaar ne ma ne ko ah xanaa fu ñuy dem ma foog nga ne président moo ma bëgg te avant loolu jigéen bi jimbi woo daf ma nga indiwaat yeneen yére parce que mën naa am président bi la gis ma ne ko loolu possible bu dee daf ma bëgg a gis rek wax ak man kon jarul may indi yeneen yére kon dama kaa tey indiwuma yeneen yére ma toog rek muy jaar ne ma ne ko fan la ñuy dem State House bu dee yaay jame daf ma bëgg a gis rek mun naa dem rek tey sax ma ñibbisi mu ne déedéet newut State House nekkul Banjul mu ngi Kanilaay hmm. fum nek ni na commencé di ragal mané légui lan motax yo yow nga bëgg ma gis Banjul la ngi nii nda ngi ni ñu waté mais nga dem ba kanila bi nga xamné ci dex bi la ngeen war ma fa yobbu donc dug na ci auto bi tej nañ buntu bi ba pare dem mënatuma dem fenn duma ma buntu yépp tej nañ ñu dem mais chauffeur bi mu ci auto bi di ma naan waaw bu daf la bëgg jox xaaliss wala fayal la nga dem jangi, nga ne ko wa nga expliquer ko dal li nga bëgg mané yow limay xalaat di xalaato na xamulo man sama xel dal joxnama ba pare limay dal parce que maa ngi maa ngi xam nit ñu bari ñuy won raconter histoire bu mel nonu ñu dem yegg mais heureusement dañ dem ba yegg euh, nga am ay auto yu dugg si ay nit yu dugg si mu am ay gan donc protocole mi ñew ne ma de mënut la gis tay xamna da ngay fanaan ba suba mané ko wa baxna sama papa di woté naka nga def mané ko dara mangi ngi fii rek maa ngi si jàmm parce que bëgguma won mom mu ragal ndax mom opposant la mo yaay jame duñ laalante te ragal mom. bu mu ko dem daf dara ma ne ko maa ngi ci maa ngi ci jàmm ma nekk fa ba ci ba ci ëllëg si moom jigéen mi ñëw waxtaanal ma nag ne ma président bi day nelaw mais bu jógee rek man dinaa dem dinaa ko expliquer ne yaa ngi fi ba léegi di xaar ma ne ko baax na ma ne ko ba ma mënee dimbale daal nga wax ko di damaa bëgg a dem bu ma soxlaatee ma ñëw bu dee amul temps den bés boobu ci guddi mu ñëw mu ne ma tey président bi une heure du matin ah. Mm-hmm. une heure du matin dina la gis. Mm-hmm. une heure du léegi nak bes bi yeb dal munuma fa gis be 1h du matin ma commencé di joy nak ragal mané wa waa léegi comprendre ma daal ma ko way man indiwuma yeneen yére mu ne waa yow amu problème ngi dem indil ma yéré yu weex dal melni ku ñuy <laughs> tegal ma <laughs> tegal ma yéré yu weex néma wa waa da ngay tëdd noppalu léegi bu 1h di wajja jot man dina la wo nga jog solo nga ñëw mané ko baxna ma nekk ci néeg bi man kenn protocole bi beneen protocole soldat da dañuy nekk bu dee restaurant lay dem sax maa ñoo may ànd. Mhm. amul fi ngay génn daa mel ni daal bunt prison daal ñu tëj bunt bi. indil nag ñu ne ma lekk ma ne leen buggumaa lekk ndax wóoluwuma woon luy xew ma nekk foofu mu indil ma yëre yi teg may xool yëre yi toog ci néeg bi rek ma toog ba ci kanam mu woo ma ne ma ah, am na lu xew daal daa am dañoo am dëj gàmm moo amoon ci biir mu ne fa waroon dem léegi mu ne léegi dañoo am dëj léegi dañoo munoo ñëwaat daal ma ne ko man yàlla daal mu may jàppale rek hmm. <laughs> ah, ñu nekk foofu léegi ma ne ko léegi wax ko ne bu dee lii yëpp mu ngi am mu bàyyi ma ma dem damaa am contrat ma dem foofu bu ma paree léegi moom ma soxlaatee rek ma ñëw mu ne ma ah dinaa ko ko wax xaw ma da dina nangu donc mu wax ko ko xaw ma lan moo xew mu xam ne amul temps yàlla ma soowee rek man loolu laa defee den mu ñëw ci guddi bi ne ma ah, léegi ak xaalis ak paquet xaalis mu ne ma ne mu ne ma jox la lii mais daa bëgg ma wax la ne boo ko waxul kenn moom du ko wax kenn kon xaalis bi yow yaa ko moom euh, nga jël ko daal léegi moom dina la woowaat nga dellu si ma ne ko am problème léegi suba teel mun naa dem mu ne déedéet mun loo dem suba teel da ngay xaar ba 15 heures ma ne ko baax na donc 15 heures boobu moo jot chauffeur bi yóbbuwaat ma mu drop ma fu ma jëlee woon ndax bëgguma mu dem sama kër donc euh, bi. man demoon naa ba Yaaya Jammeh di ma di ma di ma violé mais yàllaa ma dimbale xaw ma la xew ba ma ko rëcc mais am na jigéen yu bari yoo xam ne après man bu ma demee def na leen ko te même nit ñi ma jël si woon ñoo leen jël si même place bi ñu ma yóbbu moom lañ leen lañ leen yóbbu donc daa waruloon nekk ne dama daf maa war a violé mais ñu mel ni Toufa ak ñeneen ñi nga xam ne violé na leen te ñu ngi gaam bi te ñu wax loolu moo tax ma génn ma ne ñii maa leen ne dafa am ku yaay jama violé man tuuti mu violé ma mais yàlla dimbali na ma mais bu ma toogee rek noppi daa mel ni ñeneen ñi duñu am fit pour ñoo jóg taxaw ndax bu ñu raconté seen histoire dañuy wax ne ah mun naa am dañuy wax rek mais man mi nga xam ne tuuti mu def ma ko te loolu dal na ma te xam naa nu mu demee kon daa daa day baax ma ñëw taxaw ma ni ma raconté sama histoire nekk ak ñoom ba nga xam ne dinañ am fit ndax ñu bari la ko def Gàmbi mais kii rek moo ñemee jóg ak man mii di ñëw wax Yaaya Jammeh la ñuy wax nu mu meloon Gambie ba léegi nit ñaa ngi ragal ne dictateur bu mu meloon ak nu mu meloon Gambie bugguñ sax génn ndax société bi tamit Gambie daa mel noo xam ne kenn munta wax façon yii damaa waajoon a wax sama jëkkër defee mu ne ma waa nit ñi luñ lay luñ lay xoolee lu ñuy foog ma ne ko lu ñuy foog ak man li ma war a def du benn donc société bi noonu la mel Gambie loolu moo tax ñuy ñaan di ñaax koo xam koo xam ne yaa ngi Gambie te lii musoon na la dal ndax xam ne ñi nga xam ne dal na leen ñu ngi Gambie noppi sonn be mi ñoo génn wax ko ndax société bi nu mel di leen ñaan rek di leen ñaax ñu génn wax li leen dal ndax ñu mën a jàpp Yaya jàmme tëj ko si lu mu def euh, jigéeni Gàmbi ak ñëpp Gàmbiyeen yëpp ñu nekk Gàmbi ak ñu nekk ci biti merci